spécial safar ñun ak yéen ci bii promédia équipe bu promédia fas yéene ànd ak yéen première bés bi njëkk ci weeru safar ba bu keroogee di safar fële ci Touba. yow mi nga xamante ni que da nga bëgg a màggal ci sa biir kër wala nga bëgg a màggal ca dëkk bee di Touba wala nga bokk ci ñuy organiser bi ci safar yi ci Sénégal ak li ko wër équipe bi Promedia dina fas yéene ànd ak yéen jox leen équipe bu doy moo xam yow mi bëgg a wane sa màggal say bernde ak xew-xew yi nga xamante ne moom la ñu ci bis màggal ci njëkk lu yomb njëkk lu xewle ñu jox la équipe bu ko mat caméraman reporter defar la si vidéo ba mu jàkk dugalal la ko ci suñu biir chaîne bi di Bi Pro Média kon màggul 2022 ak Bi Pro Média ñun ak yéen incha allah presse bi. waaw Sénégal 7. bu baax a baax laaj bi nga amoon tey mooy li nga xamante ne xew na Patte d'Oie muy loo xamante ne yéeme na trop ñi ko soog a gis Sénégal jigéen yoo xamante ne dafa gis ko ci benn avant fenêtre mu toog fa ci troisième étage. ñu bëri ca ca ña dëkk ca gox boo leen laajee mu ni ci 9 ko lañ gis mu nekk xale bi muy gën a naaj muy dem di nekk maire ba màggat muy loo xamante ne doy na waar ñu koy tam ñi naan dëmb la ñu ne lañ koy wax. fi mu toll nii bon bon demee ca kër ga dañu wax ni da parce que xamuñu fu mu jaar ba toog foofu ci troisième étage jaraaf ban gis-gis nga gis nga nga nga jàngate loolu. ban gis-gis laa jàngate loolu kooku dóorewul xam nga kooku saagewul xam nga kooku dafa tiig rek fu mu warul yépp fu ñu ko surtout si jigéen mu toog fa noonu loolu war na wan Sénégalais yi ne. yàlla moom moom ñu ne alxuraan sax bi ñu ko yàllay wax dafa wax jinne wax nit nun ñi nga xamante ne ñoo fiy géré ay kooku soow dañuy wax ba tey ne sacrifice yi nañ koy def danaa wax sax suma benn dëkk muy dëkk bii di Yoof ngay gis bari na ñoo xamante ne dañu am ay rab un deux trois ñu daanu daanu rab yi parce que rab yi dëkk ñoom mën nañuy tuurumam maam njare mën nañuy ñaanal ñëpp yàlla mën na def loolu nekk mais bu fekkente ne parce que bu ma toogoon ak ñoom di ko wax léegi suñu ay lébu lañu ay coow ay taagaa yooyu lay demee mais tey rab dalay fooye boo ko boo ko boo ko respecté wul dalay fooye wax euh, toog naa mag sax si ci ci ci ci réew mi ci Wakaam Ngor Yoof ba xamal ma ne ma euh, euh, loolu ngay gis ci Yoof noonu dafa am déplacement bu ñu respecté wu xam nga lebu fépp fu muy dem day ànd ak xool ba xam lu xew fii réew mi jabar sax su ko fi ut sa papa daf lay wan naa demal ci paadiw mu xoolal man na si am waaw mais tey ñu gis ndaw soosu fa mu toog foofu si avant bi jàppal ne rek rab yi ñoo ñuy foowe xam nga dox kenn ku si nekk ñoom am nga kër kenn ku si nekk ñoom am nga tur am nga sant am ngay cousin am nga lépp lépp li nga am ñoom am nañu mais tey bu fekkente ne daf ñu wóolu woon te woon ak sa maam yow nga ñëw juddu nekk fi ñuy wax di wax ba nga ne non oof oof warul wax waaye sunu yoon nekk aussi nga dema dem ba ñoom seen bopp ñu gedda dañuy jël sa doom wala sama doom walla kële kële jël ñi teg leen bii ñii mu teg leen bii ñu teg leen bii wala cool yi tàng jib ci dëkk bi lu mu wax ñu histoire dinaa la wax benn secret kenn moo ko comprendre si Wakaam moo xam balaa may falu man mii jaraaf Youssou Ndoye maa doon tuuru tuuru mi maa ngi doon nëbbatu suma kër magu yaay bu mu bokkal benn ndey si mbul mais dama la bëgg xamal foofu ne ba moment bi nga xamante ne Wakaam ku fiy dox dafa mel ni dangay teel mel na mbadu ñaax si Wakaam bi ma faloo tey maa ngi falu octobre octobre période taw la am déet taw octobre octobre booba taw ba waxatuñu ko bët set dama falu tey ñu jiin tey trois heures quatre heures cinq heures taw ba dóor mais xam nga taw fu mu taxawee tali bi di ko VDN bi VDN boo rombee rek amatuloo ndox xam nga loolu garaaw mu am lu muy firi si pal am lu muy firi si dëkk bi mais nga jógewaat foofu ñoom seen boppa ñoom ñii nga xamante ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo loolu ñooy euh, ñëpp a diis si ngoon gi loolu bu mu amee bët set man sama bopp su ma benn su oh ah. na ah. eh, ma ne ma jaraaf li ma gis nii lan la ma ne la mu ne ma bii ma ñëwee ba affaire dafa taxaw gisatuma ma ne ko yàlla ñëwaat si batu ñaax ne ma xam nga lu ma jaaxaloon sa pal gi faluloo no nawet taw na te am na lu nekkoon ci wakaam boobu ba léegi nit ñi dañuy diis te dañ na ma ne ko yàlla la may wax lu yàlla pour wax la te wax ne affaire boobu bi mu amee am na góor man ak lu ba tolloog juróom benni nit juróom ñaari nit wala juróom ñetti nit ñu ngi toog ñaari oto lañu yoroon est-ce que da nga wax bi am na dëkk bu ñu demoon fii si si si kaw gi mu ngi nekkoon caacaw booru xombal la tudd xaw ma booru Bambey baru Bambey du Bambey ngay jëkk ca door te kombal foofu la góor gi doon xool si lu jëm si wakaam ak si si si système bi tudda leen wax leen ne xale yu ndaw yi si wakaam mu nekk nii mer nanu xam nga muy lan doomu rab yi fi nekk rab yi fi nekk yépp dañu mar fii côté bi comme côté bi comme côté bële dama lay indi lu leer nga dégg si mais bii mu waxee dafa wax ne il faut ñu defar ko wa buñ ko mën lee defar ñu oo ñu oo ko jox ko ko mu defar ko si merci nit ñi nekk nekk ci jàmm mu gestu nii ne leen Youssou Ndoye mii sax man na ko ma ne ko eh bon si dugal de man sama ngeen nekk si loolu boobu maa ngi si nëbbatu di nëbbatu rek mais ñoom tamit ñoom comprendre ñu bii ñu ñëwee ba nekk si noonu liggéenti nañ xaalis sax ba war xaalis bi na mes encore lu gis nga wax bu baax bii nga maa demee ma ba xam nga dañuy wax si mbote mbote day màgg bu nekkee xar si laay doo ko comprendre lu xewoon nan la ak naka la safar ñun ak yéen ci bii promédia équipe bu promédia fas yéene ànd ak yéen première bés bi njëkk ci weeru safar babu bu keroog gee 18 safar fële ci Touba yow mi nga xamante ni que da nga bëgg a màggal ci sa biir kër wala nga bëgg a màggal ca dëkk bee di Touba wala nga bokk ci ñuy organiser bi ci safar yi ci Sénégal ak li ko wër équipe bi Promedia dina fas yéene ànd ak yéen jox leen équipe bu doy moo xam yow mi bëgg a wane sa màggal say bernde ak xew-xew yi nga xamante ne moom la ñu dund ci bis màggal ci njëkk lu yomb njëkk lu xewle ñu jox la équipe bu ko mat caméraman reporter defaral la si vidéo ba mu jàkk dugalal la ko ci suñu biir chaîne bi di Bprod Media kon màggul 2022 ak Bprod Media ñun ak yéen incha allah.